asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, maa ngi nuyu ñëpp eh, li may wax rek pour dugg ci mbirum Iran Ndao ak dégg coow yi ma koy yi ma ko dégg muy coow eh, di dem di jël référence sax ba ba ci naan Serigne Babacar si ba mu nekkee naan du ma leen jiitu ci xel yi jiitu leen ci ci jàkka ji bul di jaawale lii du daw waaye ku niwul pëccët ba mu fekk la fa te xam ni mi ngi ñëw xarul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd nag Aboubacar Iran da nga ko fàtte xanaa lan la doon def ba yéeféeri topp ko mu daw dugg ci biir xunt moom lu taxaw lu tax taxawul moom yonent bi jàmbaarloog ñoom ba jar goñ ba ñëw di ko làq lëndal ko petax ma ñëw tàgg fa toog di nen di te pourtant loolu lépp yàlla ko ci yàlla yàlla moo continuer di ko ko Iran masala xam damaa yaakaar ni xamoo lay dem jumaa parce que li tax nga tontu ci amul kenn ku dëkk Tiwaawan ku la mën a wax ni mas naa gis Iran Ndao muy julli jumaa amul man moom fekk naa sax ay conférence ay yoon Sénégal yoo xam ni bu conférence bu julli jotee da ngay dugg ci sa biir oto waaye kenn mosulaa gisit nga këpp sa jëb yi di julli waa Tiwaawan nag ñoo ko def télé boo toog buñ ne la Iran looy def nga leen crème lay jaay dem nga Tiwaawan ñu ñaanal la ñaagal la branché la ba sa crème bi embarqué fii ku fi dem di jaay crème da ngay daanu lu tax ngay jaay crème danga nga yaakaar ni crème ji yow da ngaa saf crème wala sa sa buy dafa saf wala sa bisaab dafa saf xanaa xamoo Tiwaawan moo am secret boo xam ni la woon ci Seydil Xaaji Malik nga xam ni day defar mu xaddam yi ba ñu pare kenn ku nekk mu jël la yóbbu la ci benn dëkk nga doon fa seex Seydil Xaaji Malik bus bu la taxee nga yaakaar ni dara nga yàqu nga góor gi Seydi Alin ba bu ngumba nee na toog ku ñëw rek jox ma loxo ziar ma jox ma xaalis ne ma si nee na man leen du si bala nee na ku jot ku ñëw rek jox ma xaalis ziar ma ne ma si nee na ma yendoo di toog ba ngoon man leen du si bala ma jékki-jékki yëngal sama bopp ne cay sama góor gi Seydil Xaaji Malick ñu de ne woon na mënumaa fexe ba ngeen sant si waaye dinaa fexe ba képp kenn ci yéen doon seex Seydil Xaaji Malick loolu nag dalaa nax xam nga mbaam xamul gafaka dañ lay defar nga nekk seen TV yàlla dogal defar nañ la waaye la nga jàngoon lépp fàtte nga ko ndax dama xam ni boo fekkoon ni fàttaliku nga ci feq bi soo yoree leen nit ñaari junni képp mu leer la ni boo demee jumaa fekk ko fa sariya nee na la yow dem jumaa ja wàcc na la waaw léegi nag feebar bii nga xamante ni fii day reye Iran képp koo xam ni dégg na la yow ak sa ay moroom ba nit ñi topp leen ci dem jumaa ja bakkar bu fa nit am na nga xam ni yow yaay gàddu responsabilité bi foron man maa ngi Canada New York gii ñu frontière keroog seen gouverneur xam nga lu mu wax na économique Amérique yépp ma fexe ba ba sauver benn bakkan moomu ko gënal Iran da ngaa fàtte min ajli zalika katabna ala bani israila man qatala nafsan da nga ko aw fasaadin fi l fa ka annama aw fasaadin fi l ardi wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa Iran il faut nga bàyyi xel tuuti rek nga ànd ngëm yàlla ak ak ragal ko ak tiit fàttaliku ne bu fekkente ni jànguloo fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun Iran bu fekkente ni da nga rey benn bakkan wala nga sababu sabab fekk ca sababu rey bakkan nga da mel ne ku rey àdduna bi yëpp Iran feebar bii nga xam ni day reyee Iran guum sax boo ko amee mu leer la ni boo demee jàkk jumaa ja jumaa wàcc na la ndax da wàllu doomu aadama yi Iran boo lekkee laaj képp yonent bi na la toogal fa kër laaj ku nekk xam na ni reyewul Iran bu fekkente ni fàttaliku nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran xam nga lu ko suñ borom wax fa ida tmanantum fa aqimu salaata inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta boobu ñu ngi ci biir xare bi xam nga lu muy firi comme xam nga man xam naa ni déggu alxuraan ndax heure booy tafsir teg kaamil bi xaaji bugaan xaaji bugaan xaaji bugaan man ba ma yaakaar ne xaaji bugaan dafa nekk ci biir kaamil bi ndax xamoo alxuraan mi firi mais fa idat manantum bu xam nga xare day tar léeg-léeg mu wàññiku yàlla ne yonent bi yàgg ñi nga àndal bu xare bi wàññikoo tuuti def leen mbooloo mi ñaar ñii julli ñii garde kon bu xare bi tare lu muy def alquran ne na ko bul julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais comme yow xamoo sharia xamoo ci dara ndax am na gàmm goo doon def ca ndand mooy temps yi ngay doog a jóg rek te tuuti lool sa bopp bi rëy jamono jooju gàmmu Abdou Aziz Mbaye moo ko doon way nga tiim Abdou Aziz Mbaye naan ko naan ko Abdou yow boo demee safara yonent yonent yàlla Muhammad dem safara Abdou <laughs> sëñ bi Abdou Aziz Mbaye ngi dund yaa ko wax Abdou Aziz Mbaye mën na ko seede ca ndànd te da ngaa fàtte nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam grat yi ko yàlla takkal comme yow ab yéeféer nga bu tekkiwul dara jànguloo li ma metti nag mooy Sénégal ña fa nekk di rappi rappi seen conférencier yu ndaw yi addi yi rek ngeen di wut bu fekkente ni kii xamul li ngeen ko tontoo ngeen jàmbaar bu ngeen ko xamee ngeen jàmbaarloog moom su ngeen ko xamul nag ngeen wax ma ko ma dagg bi avion ñëw daqaaral leen ko waa Tiwaawan nag ñoo ko def bu fekkonte ni boo fa dof dof loo ñu faq yar daqaar la di nga wax leneen lu dul toog foofu di bandi bandi léegi di wëyu wëyulu naan kat sàngara ak teg topp jigéen ñi rek nga nga mën doome xaraam ji nga